asalaamaaleykum wa rahmatulah boo ñu leen nuyu di leen ziare euh, donc ne prends jamais les choses d'une manière personnelle maanaam bul mus a jël tey nit ñi liñ lay def d'une manière personnelle dans quel sens parce que la majeure partie si nit ñi tey à chaque fois nit attaqué la dajeeg nit mu am nu mu waxee ak yow euh, da ngay jàpp ni nit ki daf la yeb wala daf la sewal wala daf la tuutal tey nañu xam ni ñeneen ñi ñuy jëflanteel suñu miroir lañu. suñu miroir la ñu dans quel sens dans le sens que à chaque fois tey nit def la lu la neexul wala nit wax la lu la neexul laal na benn partie bu sensible ci yow muy sa ego parce que tey ñun ñëpp dañuy takk ay masque social waaye ñun ñëpp dañuy takk ay masque de protection pour bañ ku ñu gaañ léegi dañuy jàpp ni masque yooyu daf ñuy gaañ daf ñuy euh, protéger or que non masque yooyu daf ñuy pousser à ce que ñu ay jukko yoo xam ne duñu neex après mais ñu xam ne aussi ñun ñëpp dañu am ay blessure de l'âme tout le monde su ma déggee tey ñu naan blessé de guerre ay daf may jàpp parce que nous sommes tous blessés en fait par notre éducation par notre société par l'école bi jaar par yar yi ñu recevoir donc loolu ñax le blessures de l'âme ñun ñëpp dañu am ay blessure de l'âme waaw blessure de l'âme yi la majeure partie nit ñi la majeure partie dañu am presque tous les blessures de lam léegi nag blessure yooyu humiliation injustice abandon rejet trahison tey day tax say comportement nga koy adapté tey par exemple dafa exemple bu ndaw ki dund rejet par exemple su ñëwee di jëf jëflanteeg nit mu gis nit ki am nu mu comporté woo rek moom day retiré wu balaa même sax muy xam kii lan moo tax mu comporté wu nii. tey ki dund trahison par exemple su jëflanteeg nit mu gis ni nit ki mu ngi commencé di ko génne ay tànk bukki rek moom day day euh, éviter ñu trahir ko du coup mën na dagg relation bi d'une manière très très malsaine boo xamante ni après du ko mën a sax defaraat. ndax lan par peur d'être trahi wala par peur d'être rejeté ki dund humiliation moom elle le avec soi-même parce que humiliation tu le sens yow yaay sentir rus honte waaw mën nga ne diw dafa ma humilier fekk ne sa blessure de rejet moom mooy yeewu donc du sensation ak sentiment bi ngay yëg mais nature masque bi ngay takk sa comportement ak réaction bi ngay am face à la situation kon loolu li ma si bëgg a wax rek mooy la majeure partie du temps nit bi lay que moom dafa am blessure yow parce que moom ñàkkul ni blessure am ne serait-ce mu xool la rek blessure am yeewu na wala ne serait-ce que mu gis la ngay wax rek wax nga blessure am du coup moom elle se sent attaquée rek day takk masque am pour se défendre donc loolu waral des fois nga gis ni romb vidéo muñ ko muñ mënul muñ rek mu commentaire d'une manière nga ni waa kii lu mu ko def mais kii qu'est-ce que j'ai dit pourtant waxuma ak moom mais moom il se sent visé wala elle se sent visée léegi suñu comprendre loolu dinañ mën a xam ni dans la vie euh, ñun ñëpp dañ fi nekk pour jàng si suñu ay moroom en maanaam tey nit ki heure boo xëyee di jëflante ak nit ñi da ngay jàng képp koo dajal ci sa yoon mu ngi lay permettre nga jàng si moom mu ngi lay permettre aussi nga mm, nga yore nga gis say défauts nga gis aussi ay facettes yoo xam ne si yow xëy na bàyyi woo ko woon xel kon loolu suñ ko xamee rek war nañu di sant yàlla fu ñu toll éviter aussi di jël nit ñi ñuy jëflanteel comme des ennemis yu ñuy attaquer mais ñu gis leen comme des opportunités pour dëgg la nag yombul il faut se mettre dans cette bain-là il faut que aussi nit ki nekk ci processus de guérison processus de changement euh, décider changer sa bopp parce que tey soo décider changer sa bopp sa ego mu ngi taxaw fii jàkkaarloog yow ne la ah da bëgg changer mais non changement dafa metti man je vais parce que parce que sa ego mission du dara lu dul protéger la bëggul nga souffrir à chaque fois dara nar la daal luy metti sa ego daf la naan mais attends yow tamit bul ñàkk fayda yow tamit lii ah yow tamit lii mën na la gaañ donc bul donc di la sermone waaw pour nga def certaines réactions yoo xam ni gënul ci situation boobu mais suñu égo bu ñu xamee ni tey euh, mën nañu wax ak moom mën nañ ko mocc mën nañu négocier ak moom ba def li nga xam ne mooy li gën sans pour autant qu'on se sent blessé waaw des fois aussi se sentir blessé mënul ñàkk. mais li ñu war a éviter mooy takk suñu masque rek jàkkaarloo situation bi parce que nous sommes tous blessés comme ni ñu ko waxee à l'origine on a tous de moo ñun ñëpp dañu am ay feebar am ay métit mais ñun ñooy éviter tey di ko di ko utiliser euh, bon gré bon gré wala mal pour pouvoir xëy na euh, defante parce que du ñu indil benn kon tey si loolu jàpp naa ni war nañu am yërmande kon ci suñu biir am yërmande di jëflante jëflante bu rafet am yërmande euh, di fexe euh, di dawal yërmande suñu biir di bëggante tey boo gisee nit euh, def la loo xam daf la atteindre jàppal ni nit bi nit la boo xam ne elle du dû souffrir ñàkkul ni dund la lu naqari ñàkkul ni ni mu dund tey moo ko yóbbu ci état bi mu nekk ba mënul def lu rafet wala lu baax jëmale ko si nit kon kooku boo ko yërëmee moo gën nga di ko yedd wala nga. ndax tey mbokk yi maa ngi leen di waatal ne à travers sama expérience personnelle. y a des yoo xam ne tey dinañ ñëw pour attaquer la wala ñu ñëw pour defante wala ñu ñëw pour def lu lu metti mais tey am na ni ngay dikkee ak ñoom ci dal ci douceur ci waxtaan ci yar ak teggin nit ki day désarmé wu. day teggee armam teg fee xam ne yow miy xuloo xeex laa jóg defante taxu laa jóg bu ko defee nga gis nit ki tey ndey malheureusement euh, dina dem ba xam na ni du ak yow la war a defanteel en fait te loolu tey moo war a nekk suñu mission sur terre kenn ku nekk si ñun à chaque fois nga dajeek une personne qui boo xamante ni dafay jëflante yu bu ñaaw tey loolu war yonent bi sallallahu fait que nit ki jëflante yu jëflante bu ñaaw ngay jëflante yow nga koy delloo lu baax nit boobu yaa ngi koy faj te yëgoo ko parce que antidote u colère mooy la bonté et l'amour tey quand une personne te traite mal et que yow tu lui traites bien cette personne yaa ngi koy jox antidote te gis nga avec le temps day dem ba attitude boobu mu am envers toi dafay changer dafay changer à travers ce comportement moo tax gis nga <laughs> l'islam du ay fo tey jàng nañu ba sonn nit bu ñëwee di la attaqué wala di wax lu ñaaw nga noppi moo gën nga tontu ko nit bu la defee lu bon nga def ko lu rafet moo gën parce que suñ doon jëflantee noonu kon ñi feebar ñëpp dinañ wér mais problème bi mooy dafa am ñu gën a feebar am ñoo xam ne ñoo gën a tale mais malheureusement duñu dimbalante parce que on est tout le temps dans l'ego waaw defante defante defante te defante boobu dama naan du fépp la bon mais am na fu mu baax mais quand am na foo xam ne euh, yërmande moo gën yedd waaw ñu fexe dund ci yërmande fexe yërëm suñu bopp parce que tamit defante énergie la defante dafa metti defante dafa metti sa ça demande beaucoup beaucoup d'énergie te loolu kon suñ ko comprendre je crois que ni eh, <laughs> dinañu dinañ économiser suñu énergie aussi dinañ fexe nekk ay nit yoo xam ne daal suñu dund gi nañ ko yombal te dañ ko neexal. parce que en réalité damay wax ni la vie et simple la vie aussi est belle su fekkente ni rek suñu xol bi defar nañ ko di nga dem ba di nga gis ne àddina en réalité amul lu fi jar a en fait jàmm dafa neex te gis nga jàmm mi ngi sa propre xol. tey soo amul jàmm xol doo mën a jox keneen jàmm soo amul jàmm xel doo mën a jox keneen jàmm kon jàmm euh, dafa nekk grain boo xamante ni soo ko jëmbatee ci sa bopp day màgg di law ba ñëpp mën si. mais nañuy fexe nag jàmm bi à chaque fois mu nekk si lu dëgg parce que jàmm bu lalwul ci dëgg tamit amul sens nit ñi nag la majeure partie dëgg dafa metti duñ ko accepter. la majeure partie aussi parewuñ pour dégg dëgg parce que dëgg aussi euh, nekk na loo xamante ne ñu bëri dañuy bëgg a dund seen ay fen ngeen baal ma tax dundu ci lu dul dëgg dund ci seen ay rêve mais bëgguñu jàkkaarloo la réalité et ça aussi c'est très dur moo tax nañ si bàyyi xel bu baax